alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika sayidi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad sunu boroom tabaraka wa taala day wax ci alquran alkarim ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu muy aaya boo xam ne bu am solo la boroom bi tabaraka wa taala joxe ci ndigal waaye tere ci itam dafa digle ne waatasimu bi xablillahi jamian jàpp leen ci diine yàlla ji yéen ñëpp boroom xam-xam yi dañuy wax ne buumub yàlla gi ñeen ñi nee nañ mooy alxuraan ñii ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ne mooy diiney lislaam waaye ay wax la yu wuute mooy yàlla mooy yonent bi mooy alquran mooy diiney lislaam kon loolu mooy buumug yàlla ji nee na ngeen jàpp ci loolu mooy ndigal li mu teg ci ne wala tafarraqu waaye bu leen tàqaliko jullit yi ko xool xeetu lislaam tey jarut ngay sori boo xoolee li la wër rek danga gis ak juuyoo goo xam ne bu baree bari la juuyoo gu àgg ci sax garaaw te loolu wuute na lool ak li nga xam ne loolu lanu sunu borom tabaraka wa taala digal ci nu bennale suñuy sàppe comme niñ koy bennalee ci julli ndigal lim nu jox ci nu wattandiku lépp loo xam ne dafay tàqale diggante jullit yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan sonn lool lool ci jullit yi bennoo ba ci mbir yu sew yi yi ngay jàppe yu sew sax daf ko daan bàyyi xel ci julli rek buñ mosaan defar sàppe yi bay taxawal da leen di wax ne bu leen juuyoo ci seeni sàppe ndax su ngeen ko defee seeni xol mën naa juuyoo kii julli avancé kii arrière kii def nii seen sàppe dëng nee na loolu rek mën naa jooyale seeni xol ba ak jooyoo mën caa juddu kon ki bëgg nit ñi bennoo ba ci seeni sàppe mu nekk gennub rang ndax ragal ne loolu mën naa féewale xol yi kon kooku wax dëgg bëgg na xeet wi ñu nekk benn ci xadiisu abu saalabat alxushani radiallahu anhu nee na bun masaan ànd ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam bay tukki ñu àgg fi béréb boo xam ne dañoo war a yendu wala ñu war a fanaan xam nga ne ci àll bi lay doon nit ñi samp seeni xayma nee na nit ñi da kenn ku ne da nga daan samp rek foo jot ñu soree lool kii nekk fële kële nekk fële kële nekk fële yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen seen tàqaloo bi ngeen di tàqalikoo ci biir xur yi de kii nekk fële kii nekk fële loolu seytaane moo ko waral ndax da leen di tàqale ki nettali xadis bi nee na gannaaw loola fuñ masaan di dal dañuy jege ay daluwaay ba boo tàllaloon ak basan sax daanaka du xaj seen diggante ngir jege loolu ay détails sew la yoo xam ne ci bëgg xeet wi nekk benn moo ko mën a waral te loolu du kenn ku ko def ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko def benn bis li tax werante baaxul <coughs> dafa génn benn bis fekk boroomam xamal na ko laylatu qadr ban bis la ci weeru koor mu ñëw di leen ko wax si far fekk ñaar ñuy werante werante ba seeni dënd tàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen damaa ñëwoon di leen wax ci laylatul qadr ban bis la waaye bi ma fekkee ngeen di werante ci la ko sunu borom tabaraka wa taala yëkkati yóbbu ko maanaam fàtteloo ma ko xamatuma ko waaye daal li mën a xew <coughs> dàkk leen ko ci fan yi nga xam ne moo mujj ci weer wi fukki fan yi mujj yi <coughs> lu mel ni ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom-ñeent abdullah ibne masud radiallahu taala anhu mi ngi ñuy nettali ne Ousmane ibne Affan e, bi nga xamee ne ña nga Madina mu ñëw Makka di acci biñ dikkee moom Makka dafa julli ñeenti rakka Abdullah ibne Masud ne ah man day aj si naa ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee màkka mu julli ñaari rakka abubakar ñëw na fi julli ñaari rakka omar ñëw na fi julli ñaari rakka loolu <coughs> ne ah man de su sañoon danaa am ñaari rakka yuñ ma nangul ñi ne ko yow lu tax nga julli ñeent nag ci gannaaw Usmaan da nga amul woon a julli ñaari rakka mu ne alxilaafu shar mu ne leen yooyoo aw ay indi waaye du indi lu baax kon loolu moo tax mu roy ca Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu ndax Ousmane li nekkoon gis-gisam ci wàllu fiq moo di moom Màkka la dëkk daa dem Madina dëkk fa waaye Màkka it la dëkk ndax nit kat dana dëkk ñaari béréb nit dana dëkk ñaari béréb da dëkk fii am fi kër dëkkaat feneen am fa kër foo fi dem man ngaa julli matal boo nekkee ci diggante bi nag mën a wàññi Ousmane dafa jàppoon ne moom noonu la ndax kenn ku nekk xam ne Ousmane borom alal la bi mu daataan jóge Màkka duñu wax ne amoon na kër waaye amoon na ay kër amoon na fay daraja ak tolluwaay boo xam ne mushrikoon yi ba ñuy nangu kër yi nit ña këram bokk ci woon kon moom am na Màkka kër ba tey ànd ak ne saxaaba yi yépp wala lu ëpp ci ñoom ay kër moom amatuñu ko woon Màkka kon loolu moo tax Usmaan ibn Affaan bi mu ñëwee Màkka moom mu julli ñeenti rakka te jiite jullit yi nekk amirul muminin ci jamono yooya ñi ànd ak moom it mënuñoo def leen lu dul julli ñeenti rakka ci gannaaw kon loola Abdullah ibn Mas'ud jàngal nañu foofu ne fiq boobu doonut boo xam ne dagan nañuy jooyoo ak moom ndax dafa tegu ci dalil moo tax mu ne alxilaafu char jooyoo ci boppam musiba aw ay waaye ñu xam ne juyoo ay xeet la maanaam du caagi ne bépp juyoo rek day daal di nekk musiba wala mu nekk aw ay juyoo goo xam ne day xajjale jullit yi ñu doon ay kuréel yoo xam ne ay bi daal lay doon wala sax mu xajjale doomu aadama yi ci yeneeni diine yu bokkul ak diine lislaam googu juyoo mooy juyoo goo xam ne musiba la fitna la aw ay doom yu lay indil xeet bi waaye su fekkee ñoom ñëpp kat ñi ci biir daayirab alquran ak sunna nga xam ne moom lañu gëm ci la ñuy woote ci lañuy ñuy dund saa dalil feeñee ci sam sam njàng nga bàyyi la nga nekkoon jàpp ci dalil boobu ñooñu su yàlla dogalee juyoo am seen diggante googu juyoo bokkut ak juyoo yi nga xam ne ak réer lay indi wala mu doon musiba yooyu gën a sunu borom tabaraka taala di tere mooy goo xam ne day taqale nit ñi def leen ay kurél boo xam ne benn bu nekk day wax ne fii la te boo gëstoo xool leen da ngay gis ne ñoom ñëpp ci biddaa lañ nekk moo tax sunu borom tabaraka bi muy tere loolu la mu njëkk wax mooy wala takoonu minal mushrikiin bu leen bokk mukk ci bokkaalekat yi yi nga xam ne ñoo taqale seen diggante mu teg ci ne kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun benn kuréel bu ci nekk day kontaan ca lam nekk ña ca des mu jàpp ne nekkuñu ci dara kon loolu mooy dugal nit ki ci biddaa ci biir ak tàqaliko daal di nekk musiba moo xam ne mu mat a wattandiku la googu xilaaf bu mat a wattandiku la am naa nag jooyoo gi nga xam ne dafay am ci biir fiq comme niñ ko junjee googu dafa tàmbalee woon ci jamonoy saxaaba ya ridwanullahi taala alayhim ajmain ahlu sunna wal la ko tàmbalee ci seen imaam yi gën a mag imaam abu xanifa al malik al imaamu shafii al imaam ahmad ak ñeneen ñu dul alimaam althawri alimaam alawzaai ak yeneen imaam yi alimaam ibnu jarir tabari ñoo ñëpp ay aima lañ yoo xam ne ñoog ñeent ñoo ñi ma jëkk a tudd te gën cee siiw ñoom ñëpp ñoo bokk martaba ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tudd ma leen ñu boo xoolee seen i doxin ci biir fiq da nga gis ay masala yoo xam ne am nañ ci ak jooyoo ca saxaaba yi la tàmbalee woon waaye loola musta doon loo xam ne dafay tàqale seen diggante dafay doon loo xam ne day tàqale seen di kenn ku nekk da nga nangu ne imaam la ci imaami ahli sunna wal jamaa doonte juyoon ma ak moom ci ñaari masala ñett ñeent ba ci fukki masala du tax nga jéem koo génne ci ahli sunna wal jamaa moo tax ñooñu boo leen toppee seet leen kenn ku ci nekk dafa jàngee ca ka ca des al ahmad ibn hanbal jëriñ la lool ci shafii jàng ci moom shafii taalibeb imam malik la al imam malik taalibeb abu xanifa la ànd ak loolu lépp téewul kenn ku ci ne bi nga demee ba àgg ci war a ijtihaad di gëstu nga ba am loo xam ne yooyoo nga ko ak sa cheikh bi nga xam ne moo la jàngaloon kon loolu la leen lislaam jàngal waaye li am solo mooy juuyoo ak tàqali ko dañoo bokkul maanaam al ixtilaaf mooy juuyoo ci masala bokkul tafarruq bokkul ak tafarruq nga xam ne mooy tàqali ko kii dem kee dem nga xam ne kenn dutu am soxla ci sa morom li jaadu moo di juuyoo gu mel noonu nga xam ne kii boroom xam-xam la gëstu na àgg na ci masala fa mu ca mën a yem kooku mooy bu wala wóoroon ne sax dafa juumit nga jéggal ko njuumteem te loolu la boroom xam-xam ya doon dund naka jëkk teewul nag buntub laayante biir buntub waxante sax kii indi dalil kii indi dalil bunt boobu daa war a ubbi ku jamono yi nekk donte la leen juuyale sax lu tuuti la loo xam ne mënta tàqale nit yi ndax salafu saaleh noonu lañu doon dund dañ doon daje di waxtaan ci ay masala kii andi dalilam kii andi dalilam suñ noppee kenn ki convaincre que ca des mu bàyyi lam nekkoon ñëw ca lii wala loola amu ca ñu continué waat doon ay mbokk di dem loolu moo war a nekk ci diggante jullit yi waaye nag juyoo gi ñu yi mooy juyoo goo xam ne day tàqale nit ñi kenn ku nekk dem ci niñ ko junje léegi ànd ak ne dagan na yenn xilaaf yi di am muy yu sew sewaan yooyu ma tudd teewul lislaam li ko gënal mooy jullit yi luñ gën a mën a jege lu seen juyoo gën a mën a néew loolu moo gënal lislaam te juyoo googu mën naa néew lool su fekkee ne jullit yi dellu nañ ci li leen lislaam jàngal ñetti tomba ngi yoo xam ne benn bu ci nekk su fekkee jël nañ ko dund ko dana mën a yombal lool jege gi am ci diggante jullit yi tomb ba ci jëkk moo di bépp juyoo bu am diggante ab jullit ak jullit ñu delloo ko ci alxuraan ak sunna xool la ca alxuraan ak sunna wax ñu jàpp ñu bokk jàpp ca loola te lool lanu sunu borom tabaraka wa taala sant borom bi daf ne fa in tanazatum fi shay'in su fekkee xëccoo ngeen dara kii ne nii la kii ne nii la fi shay'in la wax dara ak lu mën a doon moo xam rëy na tuuti na nee na farudduhu ila allahi wa rasul delloo leen ko ci yàlla boroom xam-xam yi nee nañ delloo ci yàlla mooy delloo ci téereb yàlla bi war rasul nee nañ mooy delloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ci dundam su fekkee ne da ngeen jooyoo fekk mi ngi dund dem leen ci moom mu àtte leen su dundatul dem leen ci sunnaam mu àtte leen kon loolu mooy li jaaru diggante jullit yi loolu la na suñu borom tabaraka wa taala jàngal ci alxuraan nee na su ngeen juyoo ci dara delloo leen ko ci téere bi yàlla bi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi tomb boobu su fekkoon ne jullit yi dëggu nañ ci te di ko def lu xew seen diggante ñu dellu ci alxuraan ak sunna xool lu mu ca wax ñu jël ko lu mu ca waxul ñu teg ko fële kon juyoo dana néew ci kuréel yi ñuy dégg tey ci biir lislaam nga xam ne dem nañ ba àgg ci booy xool day mel ne ay diine ci diine sax far sallaaw am na kuréel yoo xam ne jokkaloo ak jaxasoo ñi nga xam ne nekkuñu ci moo leen gënal jege beneen kuréel boo xam ne ci biir lislaam la nekk te bokkut ak ñoom lu mu nekk kooku musiba mu rëy a rëy la ci biir diine lislaam ñaareelu tomb bi moo di juuyoo su amee ñi delloo ko boroom xam-xam yi ndax ñi nga xam ne jànguñu soriwuñ ci xam-xam suñ ubbee buntu werante seen diggante dana jafe lool ñu mën a tëj bunt boobu ndax du yem fenn xamuñu lan mooy dalil wax ju dëgër ak ju woyof xamuñu ko liñ xam daal mooy farfarloo diw fii la féete man foofu laa féete diw fële la féete la féete kon ñooñu jaaduwul ñuy ubbi werante ci wàllu diine ci seen diggante diine doonut loo xam ne lu ñuy foyee la waxoon naa fi ne lu bari ci suñu réew mi sénégalais yi dañ doon wax naan xaalis dañ koy lijjanti di su ko liggéey waaye léegi dem na ba àgg ci xam-xam des koy lijjanti di su ko jàng da nga gis ku yor programme diine ci ab émission ci rajo wala ci télévision ubbi masalam diine ne nit ñi nañ téléphoné wax ci luy seen xalaat ñi cay waxee seen xalaat comme nañuy waxee seen xalaat ci politique mu doon musiba mu rëy ak i njuumte yoo xam ne que ubbi émission balaa chaque ne lam cay yóbbu ci bàkkaar mooy ëpp bàkkaaroog njuumte ya nit ñay waxal seen bopp ci téléphone ci rajo ba ñay déglu lu ci baree bari dañuy déglu loolu yóbbaale ko mu doon njuumte ndax kii day tontu lii kii a tontu lee kii a am ñoo xam ne dañ cay jóge aku jaxasoo ndax duñ xam lu diine wax te comprendre luñ ne diine du caagi ni ku jot rek wax kon boroom xam-xam ci diine moo ci war a wax ndax moo ko jàng moo ko xam bu ñu waxee loolu mooy ku jàng diine ku jàng diine waxuñu nag ku bokk ci këru diine nun ñëpp ci këri diine lan bokk fa lan juddoo fa lan yaroo waaye nit dana bokk ci këru diine màgg fa am fa ab cër sax waaye fekk jàngul diine nag diine moom di ko sol kenn di ko ko doon itam des koy jàng kon boroom xam-xam ya su fekkee ne juyoo gi dox suñ diggante maag yow noo nga ca mbedd ma as werante juddu na wala wax kii ne nii la kii ne nii la ma ne ah déet bon ci sori diw sàngam kat ma nga fële imaam diw sàngam xam nañ ne nun ñëpp d'accord nañ ci ne jàng na nan dem laaj ko loolu mu àtte na mbir ma jeex ginnaaw mun leen a dellu ci alxuraan mun leen dellu ci sunna ndax sa àlluwa àggu fa waaye mën ngaa dellu ci boroom xam-xam bi laaj ko bu la jaralee li ngay liggéeyee sa marchandise yow borom bitig bi bu jeexee nangay ngay demee ci grossiste bi jënd fa marché marchandise pour dellusiwaat ak la ngay liggéeyee lu mën a doon la nga soxla ci ay pièces détachées ak ay yëf ak lu noonu saa bu demee ba ne këcc nga dem li lijjanti loola ndax sa dund mën a continuer kon sa diine moom it fu ne këcc dellul ca ka nga xam moo koy defar mu wax ak yow ca loola teg la ci siraatul mustaqim su ko defee jiw yow googa daal di jeex tomb bi. day concerné boroom xam-xam yi ci seen bopp moo di juyoo yi dox seen diggante ci jamono yu waxtaan lañ nekk ak li ñu tuddi dialogue nangoo ubbi ay bunt boroomi xam-xam toog ñi di leen déglu ci masala yi nga xam ne ñoo gën a itteel xeet ni ñu wax ci askan bu dégg mën caa jariñ loolu dañoo demagul ba gis yor responsabilité diine ji dëgg dëgg mën koo liggéeyal te yor moyens yi mu laaj waaye jaadu woon na yenn débat yi bu juddoo ci am réew kooku débat national la ndax mi ngi tàqale xeet bi suñu yeexee kon boroom xam-xam yi ci juyoo ñii ne nii la ñee ne nii la nañ bokk toog ñoom ñëpp ci kanam nit ñi waxtaan ci télévision bi ñëpp seetaan leen ñi déglu kii lam wax ak kee lam wax xool wax yooyu jan moo ci gën a yanu maanaa ñi jël ko ndax dëppoo gum dëppoog alxuraan gum dëppoog sunna misaal mu simple rek mi ngi fii ci ci ci réew mi ñu koy dund film surtout julli tisbaar fi mu nekk nii am na ñoo xam ne danañ julli ci réew mi ba sëlmal te biñ ko tàmbalee yàggut kenn ku nekk xam na activité yi ñu def ba tàmbali ko julli ba sëlmal ñeneen toogaat loo xam ne dana jege une heure de temps wala mu mat ko sëkk door a noddu tisbaar te waxtu wenn we ànd ak ne kenn ku nekk mën naa nekk ca nekk te du ayibal ka ca des ñoom ñëpp seeni julli ànd wér waaye nag du lu rafet ak juuyoo la boo xam ne rafetul la jaadu woon mooy lii may tudd nii boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo gis ne waxtu wan doon julli ci lan war a continuer julli ak ñi gis ne waxtu wa jot na bu yàgg ñi door a julli ñi bokk toog waxtaan nit ñi déglu leen sëñ bañ a seppi kenn imaam yépp bokk waxtaan woowu seeni délégation bokk toog ñu waxtaan ay conférence bañ ko def sax benn yoon bañ ko def ñaari yoon bañ ko def ñetti yoon ba keru ñi dëppoo ci lenn loo xam ne suñ fa génnee danañ ko mën a jot jottali xeet wi ñu mën cee jàpp tàqalikoo gi ñu mën cee mucc loolu benn misaal la rek ci ay misaal yu bari yoo xam ne boo ko doon wàññi tey ay nangami fukki misaal la yoo xam ne benn bu ci nekk ñu ngi koy bàyyi muy law di dem te luy tàqale aw askan lay doon boo ñëwee ci weer wi kenn waxaale wu ko nga dem ci leneen kenn waxaale wu ko yooyu yëpp ñàkk a bokk toog waxtaan ci mbir xool la ca jaadu ñu def ko moo ko waral loolu nag boo koy xool euh, engagement yi nga xam ne moom ka ko mën a jël benn mooy état wala koo xam ne dañ koo jox responsabilité boo xam ne sañ naa jël décision ci yenn yi loolu rek moo ko man te loolu da mel ni dafa manqué ci réew mi mbokki jullit yi réer dafa doon loo xam ne musiba la dafa doon loo xam ne léppam yàq la te dara doonu defaram moo tax ku xëy ku nekk war ngaa def ci sa bopp ne doonte benn jéego war nga koo seqi boo xam ne buy génne nit ci réer la waxtu wi jot sax ci semaine bi nga dikk toog ci jàkka ñi julli ajjuma ñi xutba xutba boo xam nga jële fa menn masalam diine menn masalam jikko menn masalam mbaax loolu sax ci biirum jàng ci la bokk bu yàggee rek ginnaaw li ngay dégg yaa koy garde te yaa koy jëfee lu tuuti boo ci boolee lu tuuti bu yàggee nga tegaat ca lu tuuti bu yàggee nga tegaat ca lu tuuti bu yàggee mu doon lu bari kon njàngum diine fiiwut nag ne faw rek da jàng arab ba comprendre ko door a mën a jàng diine déedéet ñu bari ñu ngi jàng diine di ko xam te fekk jànguñu arab kon foo mën a toll ak loo mën di liggéeyee jàppal ne war ngaa jël dara ci sa waxtu loo xam ne da nga koy dugal ci jàng diine fexe ba gët bu nekk nga seqib jéego ci gën a jege xam-xam te moyens yi nag bari na loolu léegi CD yaa ngi fi carte mémoire yaa ngi fi internet baa ngi fi loo ñàkk-ñàkk pexe ak loo néew am am ni ñeen ñiy def nga xam ne mënatuñoo muñ po ak musique ak caaxaan nga xam ne fu ñu toll fu ne daraa ngi ci seeni nopp loo xam ne dañuy déglu war ngaa mën a fexe ba foo toll fu ne lu am njariñ loo xam ne ci diine lay wax donte yaa ngi ci sa liggéey yaa ngi ci atelier ba yaa ngi ci nangam nga def ci say nopp yoo xam ne la ngay déglu diine la nga di ca jariñ loolu ci njàngam xam ci la bokk mbokkum jullit bokk na ci yi mat ci jamono ji nga xam ne noo koy dund te ñàkk xam-xam moo ko yóbbee mooy kenn ku nekk jàpp ne yow mucc nga la nga nekk lu baax la ña ca des ñoo manqué kooku musiba la jàppal ne ñépp dañoo manqué yow may wax ak ñoom sax ca kaw min ba da ngaa manqué saa boo xëyee war ngay wut lu lay yokk nga jëm kanam su loolu amul musiba am diine ak xam-xam laajul taxaw da ngay jëm kanam rek wala ngay dellu gannaaw yàlla na yàlla mosal ci dellu gannaaw kon bul soxlawoo mbiri nit ñi ci di leen ŋàññ waaye nag na nga ko soxlawoo ci di leen laaye biir gis nga sa mbokkum jullit jaar na ci loo xam ne du noona au lieu ngay ñëw ca garam place ba wala ña ngay waxtaanal ne diw li ma gis mu def ko tey nangam ak nangam ak nangam la ngeen ubbi foofu benn bunt ak benn débat boo xam ne di wax ca kooka lislaam jàngalewut loolu daf ne kookee nga gis ca moom loolu woo ko bu ngeen bokkutoo yéen nga ne ko man kat dama lay nga xam ne su ma gisoon lu lay loo xam ne intérêt àdduna la boo xam ne nar na laa faat na ma lay wax ne la sa intérêt àdduna bii kat sa kalpe bi wadd na kat wala yow kat boo demoon ci liggéey sàngam wala sa lii nga liggéey boo ko jaay woon marché sàngam lay gën a ci yow na ma lay laabiire ci loolu damaa gis lu jar ma laabiire la ci loolu ci sa wàllu diine moo di def nga nangam ak nangam wala wax nga nangam ak nangam te loolu jaaduwut bul defati lu mel noonu bu ëllëgee laabiire gu mel noonu mooy jariñ kon laayante biir moo war dox diggante nit ñi waaye ŋàññante ak xasante ak jëwante kooku musiba la moo tax danaa di wax ne su fekkoon ne nit ñi tey lii ñuy dund su fekkoon ne ku jëw nit rek sa compte banque yow ma am compte banque wala sa condamné ba nga denc sa xaalis dañ cay tibb jox ko nga jëw kon nit ñi danañ téye seeni làmmiñ defe naa ne moo ne noonu la de te ci banque la boo xam ne moo gën a foor banque boobu ndax sa tuyaaba ya nga am ëllëg di ko dugal ci sa compte da nga xam ne bu ñu la defee ci bàmmeel ba ba ñëpp dem seen yoon compte googa dong moo fa des amatul leneen compte googa ci ngay tibb di ko jox te defe naa ne buñ ne la woon saa boo ko tuddee te nekku fa nga wax lu ko yi dañuy dem ci sa compte banque génne ca dix mille francs jox dugal ca compte am soo tuddaatee keneen ñi defaat noonu ba ba sa compte di jeex kon boo xëyee doo tudd nit lu ko waral mooy xër gi nga xër ci àdduna moo ne xër gi ci àdduna de xër gi ci àllaaxiraa ko war a ëpp te boo tuddee nit ci lu dul loolu bul am sikki sàkka ne ci ne jël lañ sa tuyaaba jox ko moom te sa tuyaaba yooyee moo xam néew na moo xam bari na bu yàggee day jeex su jeexee la fa sës mooy ñiy jël seen ni ñaaw téef di la defal ci sa compte yow tudd nga koo warta nga ko loo warta dem ca sa compte nga nga dencoon say tuya say tuyaaba jox ko bu say tuyaaba jeexee ñuy jël ci seeni ñaawteef di def ci sa compte kooku musiba bu mag la moo xam ne yàlla na suñu borom tabaraka wa taala musal allahuma ansur diinaka wa kitaabaka wa sunnata nabiyik wa ibaadaka alsaalihin allahuma axfaz dimaa almuslimina wa acraadahum fi kulli makan allahuma arfa irhamhum warham dacfahum wajbur kasrahum wa waxid safahum wa ballighum بما يرضيك آمالهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة